dafa nekk li nga xamante ne dafa am solo loolu parce que ñun jeunesse yi benn esprit lekk lañu am mooy esprit bi nga xamante ne jug liggéey teral say waajur mooy li nga xamante ne moom la ñu woowee tekki waaw parce que amuñ dara dul bëgg a jàppale suñu waajur aussi parce que ñoo ngeen fii ñuy gis fii ñuy liggéey di kii aussi li ma gën a jàpp si liggéey bi mooy ñun béykat yi dama jàpp dañoo euh, daf ñu defal ju am solo parce que ñun yàlla moo ñu may daal waaw parce que ñun fii boo fi ñëwee ngooñ mi nga fi gis wala repas bi wala kii bi loolu lépp ci mbay lay jóge mais boo moom bu ñëwee ne mbay dañu koy defaraat def ko or mi nga xamante ne képp u ci yëngu gi ci sa bopp ah loolu daal wax dëgg yàlla xel mu dal rek la ñuy kii et aussi am na yaakaar ci moom bu baax a baax. waa sant rek am si moom yaakaar bu baax a baax a baax di rafetlu ay kàddu ñaan suñu borom moom lu mu noonu yàlla suñu borom jàppale ko fi mais ay kàddum daal ñun. dalal na suñu xel quoi di ñaan yàlla yàlla bu yaakaar tas. ce qu'il a dit je ne pas dire. xam nga léeg-léeg bu ñu amee njiit bu yees wala politique seen bopp li ñuy faral di dig askan wi bu ñu demee ba nekk ci nguur du li ñuy def loolu nekk loo xamante ne tàmm nañ ko di ko gis ci biir réew bu Sénégal waaye tamit ci yeneen di gox léegi nag moom. am na lu mu ñu digg surtout ñun ndaw ñi li ñu bëgg mooy mu jàppale te yaakaar nañu ni liggéey yooyu nga xamante ne def na ko dina ci taxaw bu baax a baax surtout la jeunesse parce que lui aussi les jeunes il est ambitieux